Les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également gars. Et bah ici du commentaire. Hein. un plaisir renouvelé chaque fois de partager des information. inbox Sénégal, il fait pour le maintenir 14 jours du Sénégal. Rokuru Khadi Gorgo Khadi ñu ngi leen di jaajëfal ñu également ci l'hôpital yi ci du yi février. feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu rek jàmm. Ñu nekk ci yi aussi erreur judiciaire gi ñeen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dëddu àdduna suñu borom xaar leen àjjana fi daw si gars yi on avance ensemble dans la magie de Sport TV et le Baba Show l'actualité en continu actualité ñu fassé yéene waxtaanee ki mooy donc Idrissa Gana Gueye mi daal di wax ci successeur am nga xam ne mooy Lamine Lamine Laftiat Camara match bi mu def lan la ko wax lan gis-gis lañ ci am loolu yépp ñu fassé yéene ko wasaare laata boobu également mbokki Sénégal yi fépp la leen dem nañ jëli seen carte électeurs yi ñi déposé woon jeunes yi ak tout dem nañ jëli seen carte électeurs yi waajal parrainage waajal élection yi ku nekk foofar ngir Sénégal ñu doxé ñu bëggee bu daal di doxé pendant ce temps du côté de la squadra Azzurra euh, ki nga xam donc nak Jorginho euh, ki nak Luciano Spalletti di seen entraîneur di sélectionneur bi neen daal Jorginho moom bu mu laalati penalty bu mu laalati penalty ndax fi mu ni dal nee na mu ratee démb dafa jeexal ay kàttam donc ay chance ama mais pendant ce temps ki nga nag mooy Michel Der Zakarian di entraîneur Montpellier moom nag dafa xas kii di euh, Thierry Henry nee na lan la def Monaco ñetti weer dafa def ñu daal di koy dàq loolu nag jëm ci gannaaw bi nga xamee ne kii di Thierry Henry dafa jël ay kàddu jëmale ko ci niveau Ligue 1 française bi am lu mu ci wax loolu daal naqari ki nga mooy entraîneur bu Montpellier pendant ce temps aussi Coquet euh, moom nee na Griezmann bu bokul ci top 3 ballon d'or c'est parce que Atletico de Madrid lay joué nee gaay gars dañ koy xeex loolu daal la japp nee dal mom dafa japp ni Griezmann Lim def yëpp bu ko gaalee boole ci top 3 yi wala top top 5 yi et tout c'est parce que équipe bi football dal la gaay fi mu bëggul ki nga xamné ne également moy joueur yi nga xamné ñom ñoo ñëk atteindre li nga moy la barre des 300 euh, buts ci seen âge kan mo ci jitu Mbappé la top ci euh, Neymar top ci également Messi ak également Cristiano Ronaldo top 10 également bo xamné gaay gars dama ci la seen xala top 10 joueur yi nga xamné ñoo dudu 2003 ñi la yeen dal kan ngeen japp ne fi ne ni war cee bokk ak kan ngeen japp ne tey bo leen ko ci doon duggal da ngeen ko ci duggal parce que man ma ngi gis ay Eliway yi ma fi gis ay Benjamin Sesko ah, Antonio Silva entre autres ah, donc voilà yeen ban gis ngeen ci am Gavi malheureusement gars yi dina tok juroom ben ba juroom ñeenti wër yo xam ne du ko football loolu la gars yi wax par rapport ak li nga xam donc rupture ligament croisé bi mu am waye nak ñeen nee nañ mën na avant Coupe d'Europe bi mais pour l'instant dal gars yi nee nañ il est forfait pour la Coupe d'Europe ki nga xam ne également aussi moy donc euh, euh, son coéquipier donc euh, du côté du FC Barcelone Douglas dem di Torres nee na moom neex moy que ne démb dugal na way liko ko moy que coéquipier am ak xaritam du côté de l'Espagne du Barça du ko fekkee ñaan mu di pendant ce temps également ki di Leroy Sané mom fi né ñi ngi rumalat nan ndax day délu si du côté de Manchester City ou pas parce que jamono dial mom mi nga xamné dal am lu woné ba tax na ben bëgg ko prolonger Manchester City également gars yi ñu ngi naan dañ ko bëgg indi indiwaat fofu non ki nga xamné aussi nak gaay yi moy la pépite de Lille actuellement le Canadien donc bokk qui ci Jonathan David joueur yi nga xamné dal daal fi wa Milan AC def nañ leen seen priorité pour la saison 2024 mon dal la ñu bëgg Jonathan David dal di ñëw nekk li nga xamné moy donc gars euh, homme fort ci attaque bi ki nga xamné également nak moy Rafinha mon dal daan na bind bataxal jagleel ko ki nga xamné aussi nak moy donc gars yi di Gavi nee ko sama voilà yow dañ ñaanal nga delu ci bu baax baax on t'aime souhaiter bon courage loolu dal la koy ki aussi Bakary Sow donc la pépite sénégalaise du côté de Séville mi niveau ah, gën na ci 15 17 yi tout mi ngi ci Séville euh, C saison exceptionnelle avec des petites catégories ñu wax également koy ah, donc le joueur sénégalais bi nga forfait il pas encore forfait officiellement fédération ci dara mais wax ne ko mi ngi entraîné ci côté groupe bi nag ñi ngi entraîné match bi la euh, qu'on espère retrouver pendant également Gana Gueye daan nay wax ci nga donc jàpp nañ ne le successeur donc du milieu terrain sénégalais d'Everton Mouy Lamine Lamine Laftiat Camara Idrissa Gana Gueye nee na ki nga le joueur du FC passé par donc Génération Foot Nek notre joueur boo xam ne tey moom ci terrain bi avant sax moo gaay mi dañ ko wax ne ko fowal donc bul texte sa pression fowal loolu lañ ko wax et que Nek nekk joueur il fallait le motiver et qu'aujourd'hui c'est un joueur boo il peut beaucoup apporter au niveau de l'équipe nationale du Sénégal man nag dama ciy profité waxaale Sadio Mané ah ne ko Sadio yaay suñu joueur dóorkatu penalty bye bye, suñu coup franc yi ah Sadio boo ñuy dégg bàyyi suñu coup franc yi bàyyi leen ko ak boy yi di Lamine Lamine daf Thiat Camara ak kii di Pape Matar ak peut-être Idrissa Gana Gueye bi nga xamné ne na ci yenn dal gars yi bàyyi leen ñooy Sadio jàppale ñu rek yow penalty yi fi ne ni nga koy doxale jamono ci baxna mais bu ci yox coup <laughs> franc yi quoi gars yi li mu nekkoon information ñeen bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir way leen di like way leen di abonné on avance ensemble dans la match des e et de Baba Show joxe seen xalaat également ci li nga xam moom la Idrissa Gana wax aussi coup franc yi <laughs> wax leen ci jaa ngeen jëf bu leen fàtte solu gars yi dem leen jëli seen carte électeurs yi waajal parrainage yi waajal élection yi parce que aussi citoyen bu nekk am nga droit wax ci sa réew ci fépp foo mënti bokk fal ki nga bëgg fal jaa ngeen jëf